sant yalla bu baakha a baax sant yalla bu baakha a baax ñun xam nga dañ defone campagne 5 mois bi passé local bi nak gis nga bëss bu yalla sak commune bu nek gaay dañ ko diviser ay zone kër yi yëpp la ñuy dugg xam nga la mo ci gëna neex fu ñu dugg dañ nañu bu len bu len sonal sen bok bu len fi ñëw la mais Machallah, la campagne se déroule très très bien surtout si nous la fait def dem fa la ñuy ñu wax ak Nous wax leen lu ñu la député docteur Omar Sissé ak madame Roxoy Diop. bala qui sont ci kër yi dañ la jaru nous, ngeen la ndax juróomi weer yi nga fi nek ak wa coalition bi ci dekk bi gis nañ changement yi kon nak ken du ci sa bop wante sant sante yalla baxa baxa baxa a ah xam nga porte à porte nak sa dafa roy nok pire porte à porte du xam nga bobu nak heureusement jox nga ma ki ma da dañ ni dañ ni yewi ñu ngi gagné tax dañ doon def porte à porte dedet ñu xam nga ñun xam nga porte à porte bi opposition xam nga la def fi seeni nit dem nek kër yoy la dem ñun duñu tëb ben kër ñun duggu ci leen kër yëpp lañu dugg suñu duggé arafat kër yëpp demee dangu kër yëpp ñom comme xam amuñu luñu wax ñeneen ñi xam luñu def seen kër militant yi dañuy dañuy dañuy yolosu dem ci kër militant yi buñu génné yolosu waxu waxu ak guru yu tuuti dem ñun nak dañ nan fang ni fës di dox di dugg fulé ne mënuñ ñoo toppandoo ndax xamul ndax mënuñoo toppandoo mais ñoom lan la ñu war a wax askan bi. nga Promoville yéen xam nga kay ngeen yëg Promoville mooy mooy bi maire bi ñëwee naan Promoville liggéey bi yéex na liggéey bi yaafus na foofu fi ngeen yég Promoville si lañ ko waxee ba waa Tëngéej yëpp commencé di bàyyi xel ci Promoville ñun leen liggéey baa ngi ñuy sonal boo ko fi nawet bi fekkee du boobu ngeen yëg Promoville gis nga waaw xanaa Promoville xam nga ñetti at la ci. chantier yi gën a garaw boulevard bi ak canal bi xam nga kañal liggéey boo doon jeex juin bi passé ñun ñu fal ñu rek ñu taxaw waa ñoom ñu ngi foon boobu léegi liggéey bi xam nga man kañ la démarré 2019 alors da waxuñu woon premier bit 2029 da ñu bàyyi ba mai équipe bu ñëw taxaw métti lu xeetu liggéey bi am ñëpp nag léegi xam ni ah parce ñom dañuy xar xaritu président de la république la won woon waaw yow ngay xarit président de la république muy démarrer ñaari chantier yu mag ci biir dëkk bi nga bàyyi sa chantier yi di yaafu ci yagas yagas yagas yagas yagas ñetti at def bàyyi élection jot légui nak nga soog wax président fàttalukul chantier yi ñun de wër lañ fi def wa waa ville dama leen bind ne leen dëkk bu mel ne Tëngéej boo fi def chantier bu ni mel 3 km 500 de ci boulevard canal bu magni nii kenn du ko ni war nga ci am pas pass war nga def ba ñepp contane li nga def mais xéetu liggéey bi fi amone xam nga ni xel ni dekk bo respect fi def légui nak man dal na liggéey bi bax rek na gaaw nak ñun son nañ sama déclaration bi passé lu wax dama ne Tëngéej moy la ne ko wax de ñom maire yi ñoy la la cité ou des chantiers inachevés de l'État waa Tëngéej ko wax ñu ne fii lu am solo lu fa état bi tàmbali rek du mujj fenn. waaw mais waa ñun yan député ñoo fi nekkoon ci dëkk bi yan député ngeen gisoon fi dégg nga man ne am na ñoo xam ne nag te période bii bi ñuy tontu Umar Cissé laa gis ñu commencé wax man leen ah li ñuy wax ci tontu ma buñ ko waxoon ci assemblée rek jël paie. man xam nga man la ku nek ngi wax au docteur ni docteur ni man la leer ton li ngeen ma tontu ci fan yi bo len ko waxon ci assemblée nationale te nga soppeku ñoñu ngeen ni ak ñun la ah non y a pas photo